Assalamualaikum Gambia andu da wongal kep ñu di len nuyu di dal la ci benen xeeti programme bu ñu ooyee City Affairs tay nak ma and afee suma xarit suma broda kuma ma ooyee Wally mom nak du gan ci kër bi ma bay ko mom tam mu nuyoo Wally asalaamaaleykum ma ngi dalal ci kër bi. Ah, ah, ah, di dalal jaamaa rek. Mm-hmm. di content am content ak bëgg rek si plateforme ñu ma dalal ni mm-hmm. di nuyu nak kilifa ni ak kilifa ade di nuyu kilifa réew mi tamit ni president Adama ko waaw di nuyu Lodnérès mm-hmm. mm. euh, ñu gis na recently dafa am benn project bi ngeen taxawal construction yi euh, euh, wanag yu yu nga xamante ne ñu ngi koo gis si school si mm-hmm. léegi school yi Banjul dinaa ne wanag yi doy nañ waar doy na waar boo xam ne soo si duggee sax mm-hmm. yow sa sa boppa dañ dee ragal ne est-ce que lii nit su fa toogee du am infection soo ñu gis ne ngeen taxawal benn projet boo xam ne kuréel la tey si nga bokka dinaa ne bokka nga si ñu ko nekk di jiite euh, bokka nga seen gannaaw yaa ngi bootu seen gannaaw euh, comme ñu ngi ko def lillaahi wa rasuuli comme bugguñ see feeñ bugguñ nit ñi tuddaleen si ngoom dañ ko nekk di def rek euh, pour jàppale askan bi pour jàppale réewi Gambie especially Banjul fii ñu gis ne si nga bokka tey yow ban kontaante nga am soo ñu waree expliquer na loolu tey yow Wally ban kontaante nga am soo waaw xam nga ñun comme li ñoo ooyee public schools ñun ñëpp suñ bàyyi xel ñëpp foofu lañ jàngee <laughs> waaw te public schools yi those days nekkoon na schools yi they are also they are they are very mm-hmm. clean mm-hmm. ah, setoon nañ waaye ñu dem jamono di dem di dem di dem di dem dañ neglect ah, dañ ah, public schools yi te loolu dafa nekk loo xam ne suñ xale yi tey ñun xëy na suñ doom yaa faa dem ñii seen rakk yaa faa dem ñii seen sët yaa faa dem so loolu dafa nekk loo xam ne waaw dafa war a nekk xale yi dañu war a jàng foo xam ne dafa comfortable classe yi comfortable période yi comfortable. Mhm. waaye tey soo demee si public schools yu ñoo ooyee public schools dañ ko neglect. Mhm. waaw nga xam ne da nga xam ne dañ ko nasaxaat. bi mhm. xam ne duñ lu wax mooy doomi baadoolo yi rek ñoo faa dem. waaw te suñ bàyyee xel ëpp doole yëpp doomi badoole yi ñoo faa dem ñi nga xam ne dañ am xaalis hmm. waaw dañoo jël seen doom yi yóbbu leen si private school pour ñu am better education hmm. so ñu ngi jël public school si na saxal ko waaye nag xam nga tamit nguur tamit léegoo léegi dëgg la nguur yi nguur yi dañ leen koy sànni pour ñu liggéeyal ñu waaye am na ñoo xam ne dañ ko def fàtte bàyyi ko gannaaw hmm. waaw te yooyu dafa nekk loo ne doy waar la nguur suñ nga sànni da nga war a da war a make sure ne da nga war a seet all areas yoo xam ne si biir réew mi la fii because of nguur président moom kenn mënut a def leen di nga am ministre of education am ministre of ku nekk ku nekk am fu mu la jox pour nga liggéeyal ko am ne dañ ko dee na saxal tamit ñi nga xam ne tamit doom yi lañ tamit am na loo xam ne leen yàlla dénka kon nañoo mën a jóg tamit def dara si réew mi tamit because of nit ki tamit doo toog de xaar ne ah lu ma suma réew defal ah nga jóg tamit yow at least nag am loo defal am na solo Eh, mu doon lu rafet eh, ba tey ya, comme si project yi nii ñaata schools ñoo si jot a eh, benefit. waaw soo soo bàyyee xel tey soo demee campement school. nu mu meloon toilet yi dafa yaaxu woon. ah da nga xam ne xale yi sax ah si biir ndox yi la ñoo dox. pour dugg seen classe yi toilet wala bi dafa génn les xale yi si mbir yi ñoo dox waaye loolu dafa nekk loo xam hmm? ne tamit ah comme tey comme li ma wax rek. am na ñoo xam ne ñu ngi si ñu ngi si réew mi fii nii. Euh, doomi réew doomi doomi Banjul leen tey su ñëwee day gis loolu ñoom li ñoo def mooy luñ toog di xaar ku leen ko defaral. <laughs> dañoo jóg jàppale xale yooyu because of at the end of the day kenn xamul àdduna foog nga mm-hmm. sa doom mun naa dem yooyu noonu. Mm-hmm. so foog ñu jóg ñu jàppale school si tamit suñ doom yaa fa nekka comme ni ma ko waxee rek waaye am na ñoo xam ne tamit dañoo def te duñ bëgg a kenn xam te duñ si bëgg feeñ. Mm-hmm. am nga nekkul ne nit ki li nga def da nga koo def da nga ko war a wone. Mhm. non non non nit ki léegi-léegi da nga def ngir yàlla nit ki sooy def da nga siy séntu yàlla ba ba si si séntu ngir maane nit ñi. nit ñi mhm. suñ la gërëmee amul solo. Mhm. Ah, ngir maane yàlla moo ëpp solo because of yàlla su la fayee moom foog naa ne di nga kontaan. Ah, mu doon la am solo So léegi project bii nii bi ngeen ko commencé situation like school si before ak léegi ah, naka ngeen lancé project bi. waaw projet bi ki ko def mooy ku buggul kenn ku tudd waaw ah, bëggul ku turam turam si comme xëy na li moo def nii fu mu nekk nii ah, of comme mooy comme ni ma la wax nit ki ah, xëy na tey yow juróom Banjul nga nit ki tey soo nekkee juróom Banjul nga juróom Banjul yaroo Banjul mm-hmm. magee Banjul soo gisee loo xam ne mu ngi yàqu Banjul yow nga am na jot nga liggéey ko te doo si xaar nguur mm-hmm. fekkee ne yow mun nga koo finance so loolu loolu dafa nekk loo xam ne lu am ah comme li ma wax léegi nii rek comme xëy na moom am na lu ko yàlla dénkal lu ndaw loo xam ne xëy na amul alal sax. Mhm. waaye am na lu ko yàlla dénkal lu ndaw loo xam ne bëggoon na koo bokk ak askan bi ah, te nit loolu mooy nit. Mhm. nit ki bul toog ba xaar ne dama dama am déedéet. gis nga lu ndaw yàlla wërsëgal. Mhm. da nga koo ak askan bi yàlla gën laa mun a yokk. foog naa ne loolu am na solo bu baax te moom tamit dégg nga doom yi Banjul la fi la juddoo fi la yoroo fi la magee lu am fi la ko amee so tey su waree doon waat Banjul njukkal te xëy na sax du bëgg a turam si lii nii xëy na maa ñëw si musée si fii sax di explain comme projet bi bon moom dafa nekk koo xam ne lu moo def daf ko def private mhm. du bëgg a kenn kenn xamal ko dara su lay may tey sax su yëkkati di la jox sax ah, càmmoñam di ko yëg so dafa ne comme li maa wax rek Ah, te dañ bëgg a bu baax moo tax ñu dee génn di wax si media yi ah, nekkul ne ñu ñoo fi daax a wax nag. Mhm. nekkul ne ñun kenn rek a war a wax. waaye tamit soo nekkee si réew tamit bokk si réew mi soo gisee loo xam ne dafa yàqu foog nga wax ko soo gisee loo xam ne tamit dañ koo caja tamit foog nga génn ko kon kon moom mënuñoo noppi ah, yàlla daf wax foog ñuy di wax di wax askan bi tamit di askan bi tamit comme réew naka la war a doxee. ak réew naka la mën a demee si ban direction lañ mën a teg réew mi. Euh, ñoo ko déggandoor mu dekk nekk ndaw boo xamante ne mm. euh, Banjul moo ko soxal Gambia moo ko soxal euh, mbokk yi ba tey ñoo ko déggandoor am na leneen yow mi seetaan man mi fi toog am na leneen lu mën a def pour gën a soxal mi jëm kanam ba tey si kaw loolu Wally yow foog nga ne am nañ Banjul yan ñoo xamante ne mun nañoo toppa si seen tànk pour liggéey lu gën a raw lii si biir réew mi. Mm-hmm. Banjul tey suñ bàyyee ñu di président yi fi jaar yëpp Banjul lañ jànge mhm. liñ am yëpp Banjul lañ ko amee ah doore ko si Sir Dawda Kairaba Jawara ba ñëw si Yaya Jammeh mhm. ba ñëw si président Adama Barrow ñoom ñoo fi leen jàngee Banjul dañ ko def bañ dañ def bañ ba wax ne Banjul gan la gën a bëgg comme ñu fi di kat mhm. because suñ bàyyee xel ñu fi dee ñëw am teranga it's too much bari na xëy na ah, tey man those days in the sixties mu ñëw ba si seventies ba ñëw ba si eighties yi ah, suñu tubaab yi dañ daan te su demee traité ah, di nga am foofu noonu njaatige boo xam ne xit na yaa moom yi nay nekk foofu soo ñib si jox la ko soo ñëwee nga dalal ko school mu jàngee fii magee fi amee sax xit na sax yow sa doom yi sax lañu waroon a am sax moom mu a soo gisee réew bi Banjul dafa nekk réew moo waaye dëkk bu am barke la ah, barke mu ngi fi waaw ah, suñ bàyyee xel fii ñëw di am moo ëpp ñi nga xam ne sax si réew mi ci Banjul lañ <laughs> nag moom nit ñi foog ñu yaatu suñu yaatoo rek ah, dinañ dëkk-dëkk bu sell te kenn du kenn. Ah, mu doon lu ama am solo Wari Sarr lañ àndal tey si kër bi dos ah, waxtaan bi lu tuuti rek la dañ ko doon tënka pour ñu nga xamante ne ñu ngi seetaan ñu gën a gëstu gën see bàyyi xel because gis nañ ne wanag yi Banjul school si wanag yi ñaaw nañ torop doy na waar doy na waar. waaye li mhm. gën a daw yaram. Mhm. am nga dos des ñun dañ ñu dem leen school. xale yi ñu daan cleaning nan naan sete ya. nga sol seen uniforme bu set sol sa dala yu set sol sa kawas yu weex ya. bara yu bor sa baat dem school wacha waaye tey mosu nañ ah ëpp doole xale yi yëpp tey soo leen gisee suñu wàccee school da nga foog ñi te mun play football loolu ah, dafa nekk loo xam ne dafa daw yaram ah te nguur nag dafa am yenn yu xam ne yu nga war a gën a adresse tey président arama moo ko dënk rek mooy na gëstu baadoole ba baadoole yi ñoo ko si réew mi su gëstoo baadoole yi lépp loo xam ne ko si réew mi dina ko am waaye nag baadoole yi boo leen nasaxalee nag muy yow sa nguur dafaa nasax mu dem kanam foog nga gëstu baadoole yi baadoole yi dañu am tiir si réew mi te baadoole yi ñoo ëpp ñu am te fii nii tey soo ba suñ bàyyee xel tey fii ñu am yëpp si baadoole lañ juddoo si mm-hmm. ñàkk lañ juddoo si kenn judduwul am yow nag bu la yàlla dénkee dara soo juddoo si badoo la nga dem bi si kanam mm-hmm. yàlla ko si barke mu am lu mu la dénkaat war ngaa gëstu war sa ginnaaw bu baax nga xam ne lan daan dunda am nañu koo dunda tey mm-hmm. nga ak ak nga gëstu leen di leen jàppale di leen dimbale mm-hmm. tey moom la yàlla teg si réew mi kenn mënu si dara waaye tamit na gëstu baadoole yi all areas nag muy béykat yi fu nekk baadoole yi ñoo fi ñoo fi bu baax suñ jàppalee baadoole yi rek comme nako ko sa bir wax yang ngi doon wax ne comme xalé suñ daan dem school those days dañ daan gis dañoo baraayu niit ba bugg ga dé because ñu né eh, cleanliness is part of eh, it's next to godliness légui ñu gis comme lolu nonu comme té yow lay wax ci waajur yi ñoo sagan. wala xalé yi ñoo saagan parents tamit dinañ leen blame si benn bor nit ki tamit so ñaké tamit taxut da nga wara a déedéet so ñaké ñàkkee da nga wara def lu baax lu gudd set ba ku la gis ne yow da nga am xam nga réew. Hmm. comme nu ma ko waxee rek réew suñ buggee mu dem foog ñu boole suñ xol yi. Hmm. foog ñu defar jikko yi ah, réew moo xam ne tey réew mii dañ ne réew si réew yi gën a ndóol la bokka réew yi gën a ñaaka. Hmm. waaye tamit suñ bàyyee xel si yenn area si Gambia tamit am na foo xam ne am na fa réew fu mu tane yenn réew yi. tey soo xoolee si wàllum dunda. Gambia amna na réew yu tane afrika rek bari na sax. Mhm. waaw tey so xoolee ci walum dund Gambia amna na réew yu mu tane waaye nag réew pour mu develop su ne réew mu ngi develop dafa la all areas. Mhm. fu nekk la wala a ay du te bena bor rek waaw tey suñu baye xel tey Dakar da ha Banjul de infrastructure yi. Mhm. bot am na boor ne tamit Gambia tamit mo fa gën mo fa gën Dakar de. waaw ci bena bor waaye kon nag mo wax rek ñu jàpp rek. ñu bolé suñu loxoy yépp ñu anda ñu mëna liggéey. ñi nga xam ne businessman lañ ñi nga xam ne dañ amee place tamit mm. fii nii nekk ay nombre tànka mm-hmm. war nañoo mën a jàppa because of tey président bi comme ni ma ko waxee ne mënut a def yëpp dafa am ay ministres yoo xam ne ñoo ko jàppale si li moo def ñu nga yàlla ñu saaka sax mm-hmm. dafa am ñoo xam ne dafa naa pour ñu defal commission moom kenn nag yàlla su ko neexoon mm-hmm. mu jël yëpp di ko defal boppam waaye tey dafa am ay manay yoo xam ne yu la mu isi ay yónnent tamit wàccee leen bu yónnent ay demee tamit mu isi ay borom xam-xam yoo xam ne tamit ñooy spread diine bi su dëkka pour mu dem dëkka pour mu dem ah. foog ñëpp jàppa su ñëpp jàppee rek moomu noonu dina dem waaye su ñii di gas ñii di suul moomu dafaa na sax du dem kanam dafaa dellu kanam tey schools yi ngaa gis nii comme ni ma ko waxee rek school si nga gis ni tey doomi Barrow ñoo faa dem tey fii ministre bu fi am ku fi nekk ministre ngaa jël sa doom yóbbu ko private school su jeexalee private school yaa ngi ko préparé pour mu dem abroad pour dem jàkkari éducation am tey loolu tey fii soo ñàkkee pour sa doom jànga yéen a jànga yéen a faa nekk problème mm-hmm. waaye tamit loolu nattu la boo xam ne yàlla moo ko def teg si kaw nit mm-hmm. waaye at the end of the day tamit kenn du dëkk si ñaaka am saxul mm-hmm. ñaaka saxul nga xam ne fii nii ñàkkoon yàlla wàcce na barke seen kër yi li nga xam ne tey seen doom yi tey ñu ngi enjoy mhm. moom noonu la ah, jërëjëf comme mbokk yi ñoo ko déggandoor fii la ñu waxtu may ñu em ak yéen ah, ñu di ñu ñu dig leen di ñu dig leen dox daje ba beneen jëmi jamono si seen City Affairs sexel Network TV la jërë ngeen jëf